ñaar Korent bi mooy ñetteel bi yoon ma di leen ganesi bépp àtte dina aju ci seedees ñaar walla ñetti nit li ma waxoon ci sama ñaareelu ngan ci ñi bàkkaaroon bu yàgg ak ñi ci des maa ngi koy waxaat léegi bala ma dikkaat su ma dellusee duma yërëm kenn bu fekkee ne dangeen a bëgg firnde juy wone ne kirist mooy wax jaarale ko ci man dingeen ko am digganteem ak yéen du ànd ak néew doole waaye dafay feeñal kàttan ci seen biir néewoon na doole ba ñu koy daaj ca bant ngir rey ko waaye mi ngi dund ci kàttanu yàlla nun itam néew nanu doole ci sunu bokk ci moom waaye dinanu dund ak moom ci kàttanu yàlla bu nuy jëfante ak yéen xool seen bopp bu baax ba xam ndax ngëm a ngi ci yéen seetlu seen bopp xanaa xamul leen ni yeesoo ngi ci yéen walla boog ngeen gis ne ay naafeq ngeen waaye yaakaar naa ni dingeen gis ne mën na noo wone nun firndeg ngëm nu ngi ñaan yàlla ngeen bañ a def dara lu bon waxuma ne danoo bëgg wone noonu sunu firndeek ngëm waaye sunu yéene mooy ngeen jëf lu baax bu yaboo sax ñu jiiñ ñu ak naaféq ndaxte mënaluñu dara dëggu yàlla gi mënuñu lu dul taxawal ko bu nu néewee doole fekk am ngeen doole bég nañu ci te sax nu ngi ñaan ngeen jublu ci mat looloo tax ma leen di binde nii bala maa ñëw bëgguma leen duma ci sañ bi ma boroom bi jox jox na ma ko ngir ma yokk seen ngëm waaye du ngir seen kasara kon nag bokk yi bég leen jublu ci mat di déglu soññent bi ma leen di dénk am benn xalaat te dëkk ci jàmm noonu yàlla miy mbëggeel te di yàllaay jàmm dina ànd ak yéen saafoonte leen ak xol bu laab mboolem gaay yàlla yépp ñu ngi leen di nuyu na yiwu sunu boroom yéesu kirist ak mbëggeelu yàlla ak booloo gi nu am ak xel mu sell mi ànd ak yéen ñépp